code procédure pénale. lan la wax. qui euh, wax que euh, l'obligatoire je l'ai ici je l'avais ah, tout de suite. Euh, qui parle de crime parce que suñu waxee viol ah, ah. également crime la ñuy wax l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime sauf disposition spéciale. mais déggoo ne xam nga bu ñu nee crime flagrant. Mhm. doo dem flagrant délit. Hmm. instruction nga jëm xam nga loo jàngul mënoo koo tari. xam nga droit du littérature du lire rek nekk problème tarawal xam nga lan. Hmm. droit l'exercice la. c'est pas parce que dañuy délit rek flagrant délit que on se rend c'est un crime flagrant c'est l'instruction mais benn député bu ñëw fetal nit mu daan da ngay dégg immunité parlementaire c'est un crime flagrant on l'arrête immédiatement et c'est un crime flagrant on l'amène pas devant de, devant le tribunal des flagrants délits moo boobu ngay dégg concept flagrant tribunal des flagrants délits du booy juger lépp lu flagrant comme crime par exemple dégg nga li ma la wax. Mhm. kon loo jàngul mënuloo euh, xam lan mooy technique juridique yi. da ngay combiner article yi. mais mais instruction bi est que euh, duñ ko xoolaat parce que Baara am na lu wax ñu ne offense au de l'État c'est flagrant cas boobu ñu jël ko yóbbu ko instruction fàtte ko fa sept mois après ñu doo ko juge instruction boo xam ne dañ lay yónnee bàyyi la foofu juróom benn weer. loolu exemple la c'est un exemple Baara Gaye non non pas li la dama ni. quand le crime est flagrant ou quand le délit est flagrant amatoo immunité parlementaire <laughs> le flagrant délit ce n'est pas loxo ci poos ku ko wax benn sur trois points la nga jël benn mhm. loxo ci poos wala lu jege li la li la tuumal nugoo toog trois mois soo ko porte plainte wala trois ans soo ko porte plainte ensuite bu dee cool topp na mbir mi loolu de mooy flagrant délit ci ñu jàng droit bokk d'accord xëy nag ku nekkul avocat gën a foor avocat ñun xamuñu dara ma yeggal ci beneen Euh, alors maître li nga noté bëri na non mais du ma yëpp du yëpp laay tontu mais danaa leeral parce que boo ñëwee pour la dama xel yi ah ma ne ma ñëw pour leeral xel yi rek fi fi kekk la nan dafi bonde billaahi su dee suñu bàmmeel yi tim ñun ñëpp de dañ xam ne kat moo ñeme yàlla ak ku ragal yàlla tey ak kuy wax rek di di yuuxu rek xamoo dara. allez-y parce que domaine bi njëkk domaine droit la xaaral ko nii lu ma nag trente deux trente et un ans trente deux ans de barre quand même. maître allez-y vous écoute. quand Adel Korba ba ci Frank Timis jaar ci Hissène Habré Karim Wade. ak yeneen man la ñuy jàngal droit léegi droit pénal koo xam ne mosoo jàng droit. maître sur la question. Mhm. alors ñu ne la question du complot. Ah, d' mhm. abord damay répondre benn question dafa am koy wax léegi mhm. maa ko maa ngi noté de parce que man. li ma gën bañ mooy ku waxul dëgg xamul fi mu ne le procureur a fait une plainte contre X ko wax loolu yaa ko wax war nga jàngiwaat procureur mosul le plainte contre X procureur du bind plainte xalaat ko ni laa rek ni laa rek boo plainte procureur du bind plainte réquisition ah, man dama la poser question xam nga réquisition non non les mots les mots ont leur sens. d'accord def dans le. il a voulu parler de réquisition le procureur def. très bien. boo xam ni réquisition. Mhm. Euh, contre X la def parce que un il a cité Ndeye Khady Ndiaye. mi nga xam moom mooy euh, propriétaire salon bi. deux mu def x deful Ousmane Sonko alors que ñee loolu lañ weddi ñoom le députés de la majorité lool laa wax c'est-à-dire ni réquisition la wala plainte la loolu c'est un autre débat c'est pas le débat le débat mooy le procureur ku ne xam na ni procureur réquisition lay def réquisition ci la def x. daa waxal ci sa micro deful Ousmane Sonko deful Ousmane réquisition. d'accord loolu wax. maintenant bu ñu ni plainte on rectifie loolu moom du ci dara. dafa bëggoon wax la débat ne faut pas il ne faut pas euh, qu'on pollue le débat sur ces questions là. allez-y maître continuez s'il vous plaît. ndax maa moom parole wala moom moom moom dañuy préciser. non non dañuy préciser préciser. dama la même El Hadj préciser. bi waxee plainte est-ce que dama ko dog est-ce que dog naa ko. dama ba sama d'accord Dame laissez-le terminer s'il vous plaît Dame maa ngi ñëwaat ci nañ ko bàyyi mu mu mu mu yeggali s'il te plaît alors suñu suñu commencé def nii rek ça va pas ça va pas aller nañ ko bàyyi mu yeggali après je te donne ñu dem ak ku jàdd yoon man ne dëgg dëgg maa ngi sama temps. maître allez s'il vous boo boo boo dañu tëkkale boo yemalee am ko gedd am ko benn. ñu ngi perdre temps allez-y maître. ñu boole am ah, kii dëgg. voilà xam ngeen kon ku jàng français xam ngeen ne daam jàng na français boo xam ne réquisition ne veut pas dire plainte. réquisition égale plainte koo waxul dëgg. waaw dafa def erreur rek dafa dafa juum mais dama ko posé ndax yaa wax plainte procureur dafa def plainte mu ne waaw. kon loolu la lu mu ci question bi est-ce que dana posé question benn ma mu mu réitéré li mu waxoon. maître maître non nan nangu ne. nan nangu ne woon daanu daanu na foofu soo ko nee. mais mais c'est pas le plus important non premier maître. bu ñu perdre le euh, temps. pas à l'essentiel bu ñu perdre le temps.

contre X la. ba Sénégal yu bëri gëm ko ma ne loolu du dëgg yéen Sénégalais yi. c'est une ñi ko wax ñëpp muy député muy daam du plainte. réquisition la loolu jàll ci jàllal. contre X. jàllal ci leneen ñoom ñëpp dañuy bëgg a naxal sar xel nit ñi. mais lan ngay wax ci thèse du complot may ma may ma xam nga c'est très important X bi. même yow sax li nga waxaale naa ci xaw a rectifié waale tuuti. X ci réquisitoire bi dem ci pro ci juge bi la. juge d'instruction ndax comme moom dafa laaj ñu jox ko cëram yépp kenn mënu koo topp pour le moment te dindiwuñu mënaanu kiraayam kon bu ñu def rek histoire contre quelqu'un boo xam ne mënoo koo topp mais tudd nga ko nee nañ am na plainte contre moom mu ngi ci rek histoire bu ko dugg ci dossier bi assemblée nee nañ ñoom dégg yi leen jaajo bi man loolu ci dossier bi ñoom ñoo dégg ni effectivement lettre ministre bi ak lettre juge bi turu Ousmane Sonko mu ngi ci duñu wax mukk ba wax loolu ñoom ndax ñu naan nañ seen x x mooy kat alors que x dañuy plainte da topp nañ seen mbokk mi di député comme yéen diw moo ko porte plainte ñu bëggoon nag comme dossier bi dem na ci juge bi ñu bëgg a xool moom fan la ci yem lum ci laal te pour ñu def loolu il faut ñu summi malaanu kiiraayam loolu la ñu di laaj loolu lu ci rek ñu naan ko x xamuñu x alors que nee nañu diw mii diw mii la ñu porte plainte pour lu garaaw lii pour ñu mën koo oo nag ah juge bi ak ministre bi wax ñu dindi balaa ne kiraayam mhm. bu boobaa ñu xam ñu mën koo topp nag parce que moom moom dafa bëgg ñu respecté loi bi nee na parce que nee na def lu flagrant délit ñu may ko ko waaw bu ñu ko mayee te war ko yóbbu ci juge d'instruction bi léegi te juge droit ni ko procureur amul droit bi nu turam tant que dinañu malaanu kiraayam mais xam ne bu dina malaanu kiraay bi mhm. xam nga xam nga ki muy doon x ndax boobaa da ko na topp nag xam nga kon loolu du dara coow li fi créé. Mhm. naan dégg naa benn bi dama naan waaw ñun xamuñu nu ñu def xalaat fii nu ñu mën a xamee x Ousmane Ousmane Sonko la te ñu xam ni x taxul ñu demee levé immunité parlementaire dégg nga nee ne. d'accord déglu ma rek. dama mhm. bëgg mu leer ci Sénégalais yi. Mhm. x yeegul assemblée. assemblée. neewuñu leen levé immunité parlementaire x. bu wax da ngay kàcc ministre bi newul président assemblée de lever leen immunité parlementaire x pour député yi seen x mooy kan député yi waxuñu ne ñu àtte waxuñu ne ñu gëstu dañ leen nii soxla nañ kenn ci justice ci tant que dinuñu malaanu kiraayam justice justice mënu koo laaj dara comme plainte baa ngi nii plainte contre Ousmane Sonko la du plainte contre x de te moom mii lañ moo mii lañ jiiñ moo mii lañ tam dëmm ci lettre yépp turam ci dañoo bëgg ngeen dindi malaanu cere nag pour ñu mën koo nag topp nag. d'accord léegi bu loolu amee nee na est-ce que kon député bu jigéen tëb di dal naan ko dañu war a ku x mais kenn waxu leen ñu dindi x di x ca bureau juge bala yem assemblée x demu fa assemblée demande levée immunité parlementaire benn waajoo xam ni. Mhm. am na plainte contre turam. lañ ci bind. d'accord waaw ma yeggali foofu. alors mais mais maa ngi ñëwaat maa ngi ñëwaat ah, ci complot bi laa bëgg a expliquer non non dañoo ci complot damay continuer. daam bëggoon nga ci minute yi yi may wax daam. ko coupé ci. mais mais euh, ma doon ci complot bala ngeen yegg. nee ñi tooñ Ousmane Sonko ak ñi taal dëkk bi ñoo ñi dem bëggoon koo jëli yéen xanaa xam ngeen ni force de bu ñu woon pour jëli ko moom bi nga joxe convocation wujjiwul ñu xëy ay nit rassemblé buntu këram les rassemblements sont interdits ñu ñëw ne leen ñun jël ñu sax et ñu ñëw dugg ne leen jël si ko jëpp dégg force de ñu ne jël si wuñ Ousmane Sonko mais tasaare leen tasaaru leen ñu dem taal dëkk bi kon kay ñoom seen waa ji leen oo ni leen gars yi bàyyi leen réseaux sociaux yi bàyyi leen coow li affaire bi rayante la léegi léegi na leen jaral seen bakkan lu mu leen jaral nañu ko jaral pare leen pour dee pour man man seen yàlla bu bees bi. Hmm. man mi jiita bokk aram. rek dee leen dem la ngeen taal def ay ceinture explosive dee ci marché yi pour ñu xam ne bokku aram am na. déglu rek déglu nee na foofu la bi léegi kon complot amul de li ma la mën a wax mooy. man de li ma gis mooy koo xam ni ñemewul dem wuj ji mooy koo xam ni ragal ñu jënd immunité parlementaire am koo xam ni mu ngi pat pate raf raf raf raf raf koo xam ni. mu ngi manipuler opinion bi koo xam ni mu ngi dem ñu ay rassemblement mu dem université je termine par là par là mu dem mu dem université je termine ne ne je termine mu dem université alors que actuellement covid bi kii yaa ngi soog a ñëw sax vaccin yi ñëpp gi jaaxle dégâts gi bëri nga dem dajale étudiants yi ah étudiants yi ba ñu la ñu di tàcc ñu naan la violeur ñu di la violeur mm-hmm. xam nga loolu aussi du lu ñu lu ñu sabablu ci koo xam ni bu dee na nga nekk njiit ah d'accord bu ngeen ma nee ne bàyyi ma daaneel damay chute damay chute bu dee da nga nekk ji wala wala invité wu ma non non si la Sénégal yi bu ma leeral ñu ñu di ko cof lii dafa war a leer dañ toll foo xam période boo xam ni jaxase xel dafa bëri mhm. xam nga lu tax xam mhm. tax da am ay journalistes yoo xam ne dama tudd seen tur du leen may du succès fii di wax di génne ay PV xam nga tudd dafa ay PV bàyyi ma terminé foofu laa chute génne ay PV nee na nit ñi ñëw tur bi génne PV yi d'abord PV koo génne ak ak PV ci boppam kontul ndax ci la droit génne ko kon PV yooyu mën nañu ay faux la parce que PV P la l' instruction est secrète l' enquête est secrète donc ñoom ñëpp nekk nii mën nañu jàpp tëj journaliste bu fi génne PV mën nañu tëj. Ah. Ah, ensuite PV yooyu PV yooyu dafa dugal Ousmane Sonko man du dugg ci dossier bi de. bëgguma ci ci ñëwaat mais wala bu ma lu ma xam bi man mais par exemple pour man batailler oh, lu ma ci wax. mais ñoom ñoo jaxas xëy naan PV bi li ci nekk dafa dafa wari ne Ousmane deful dara au contraire bàyyi leen di jéem a nax nit bi wara na ni wari na ni Ousmane déglu ma du ma dugg mais kenn weddul Ousmane dem na ci dem na fa quand même mhm. kenn weddul Ousmane <laughs> yaramam laal nañ ko kenn weddul ne xale ba mu ngi fa woon kenn wanewul ni non yooyu yi ci biir yëpp. j'espère que su def kenn weddiwul kenn du kaas. kenn complot ki complot complot complot bi xam nga mu ko def. ah 16 minutes. kii ki bàyyi couvre feu guddi. traversé couvre feu bi. waay bàyyi ay jongomaam. Mhm. dem foo xam ni guddi kenn waru fa liggéey normalement. alors mais ay xale jigéen di la nekk. nga ne sumeeku nga sumeeku woo lu la fa dal. yaa ko teg sa bopp. Omar